acca ma ngoog yëglekaay ngoog maa ngi ci lànket yéenekaay président Macky Sall ma ne assemblée a a a a mi li waral mu jël lu ni du lenn nag lu lu fas yéene nag bu bëggee sam sampaat ndëndëm ñetteel bi yoon de troisième mandat bi mu mën nag daal di déclarer état d'urgence te it kenn du ci sañ-sañu wax Abdoul Mbaye ne nag lii kay ci biir yëglekaay l'enquête mooy ab recul démocratique dellu ginnaaw dëgg lañ la ñu Macky day taxawaayam bi mooy ab dictature dëgg jaay doole ak yaama neex la séenikaay ne Macky Sall de éliminer ses pouvoirs Macky jëm ci état d'urgence bi ak état de siège bi voté nañ ko démb yéene nguuram nag Elimix nu mu ko neexee amul limitation waaye de organisation yi nga xam ne ñooy xeex ak yelleefu doomu aadama yi ab scandale kaa duppe de mën ne ci biir yëglekaay laas ba tey l'opposition bi ne xaaral ma ñëw mën ne lii nii amul dara luñ ci nangu dañ kaa bañ ba sa naaj wa tribune yéenekaay ne lu ci mën a am de mbay wéy na mbuus ndax nag daa dinay jàll ci assemblée nationale la majorité mécanique dicte sa loi mën ne ma koy buur di bumbi ma ngay lëmbee ak fii Soulentou la fii ni wante de loolee ku jëg lànk ne ko nangu ci Vox Populi ne ne daañu dem saisir conseil constitutionnel nag ngir nag ñu invalider loi bi ndax de lañ ca xalaat mooy ay ndëgg sërëx ak i prox la caa Macky Sall jublu ngir nag am ñetteelu mandat am troisième régime lay waajal moom prison Macky te loolee muy taw mbaa naaj muy guddi baa bëccëg amu ci lu toll ne ay nit lu ñu may Sall ngaara lam toll bur gëdee koor Marème Faye Sall mi quotidien yéen kaay ne le huis clos la débat coow la jeex na de adoption jëm ci loi état d'urgence boobee a jàll na de comme lettre à la poste mu ne de ci assemblée nationale ci biir yëglekaay bi di le quotidien Antoine Félix Diome ne constitutionnalité kay maanaam wàllum càttum réew posé fii jafe-jafe kay amu ci yéen ku jégi ngeen di tëb di dal Abdou Bara Dolly Mbacké ne de lu ñu dal waa dañu ko yóbbee ndax moom moo bloqué suñu ay recours combat bi man xàmmeetuma ko ni muy doxalee la war a xoolaat taxawaayam war na xool lañ ba daatde xoolaat ko ci biir groupe parlementaire bi moom Serigne Cheikh Mbacké yamu ca de ne dey sans le PDS c'est impossible d'avoir seize députés signataires déet waay Mbacké Ball waaw waaw ndax nag moom mi de sama doom baay bi la bëgg di ay xaatim fukk juróom benn ci ay signature mënoo am ndax les non inscrits ñi nga xam ne bindiwuñ fenn ci ay ndaw ca pénc ma juróom-ñeent ne le PDS ne peut pas s'embarquer dans des futilités ou dans la recherche de buzz wàllum buzz ma ne loolee ñoom nee nañ doxuñ ci tey doxuñ ci ëllëg libération yéen kaay ne li ñu war a dox kay mu daal di feeñ mooy soxna si jaari saw moom fu mu ne uwee tuy jaari saw libération yéen ko biral de ne day lu ci mën de am mooy ca Lyon moom la ñu tegoon ci ay piste lépp faussé wante de bu ñu sukkandiku ci l'observateur ma ne de réerug meilleur élève bu Sénégal gi di jaari lu jëm ci xabaar bi waragul bu baax de les éco yéen woo taxi de mi ngi bëgg a moo tax parquet bu Paris de ñooy mujj auto saisiru ci mbir mi laa la wax moo tax de jaari ñu ngi presse française bi yëpp de ginnaaw l'enquête bi nga xam ne jébbal nañ ko brigade bu répression bu délinquance PRDP ca diwaanu Paris ña ca liggéey bi de lu ci mën a am de ñoom daal ña ngay wër ga ngir nag fas yéene gis ki nga xam moom moo di jaari sow tribune yéene kaay yëgle kaay groupe des médias ne lenn rek moo ci xabaar bu neex de mooy nag heureusement hôpitaux a tane a abi sida ay ñu nag mbas mi ay mbas mi dooñu abal bokkul ma la xanaa ñu abal ne day ñeenti bakkan ñoo wadd dem booy xool ñi ci ñàkkagun seen bakkan toll nañ ci ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent 469 morts fu ñu jëm waay tey li ma ne ñi ngi ci guddi gu bët setut moo tax sosu aane la Sénégal dans la nuit ñi de bu dee seen guddi bët set na tamit de leeraange nga des na diggante maître Moussa Diop ak Omar Boun Khatab Silla maa ngi ci sosu a ba tey de ci kër gi di Dakar dem dikk ma ne de maître Moussa Diop moo dem kii di Omar Boun Khatab Silla moo dikk moom mii di maître Moussa Diop nañu xaar ak génnam tey ci ngoon de ma ne dina leer naa ñi de xaw ndax dañ na dégg Silla wàccal Diop wala Diop wàccal Silla de waaye moom maître Moussa Diop wàññab conférence de presse am laa wax baat li ngeen dégg jàngeen jëf ñu yendoog jàmm